day doon fee di jubale ci bëggaan paket-paket bëggaan Nyom. paquet paquet non non pour pour man xam nga pour man pour l'instant ñëw pour l'instant ni ñoom jaruñu xamul lu tax waaw ñoom jaruñu taxaw xamul tax ñoom jaruñu taxaw buñ taxaw parce que ñoom ñooy wane ni mhm. yéen cinquante quatre pour cent yi voté woon mhm. lii la leen état bi yéene mhm. mooy ay xale yu jàngul yu tekkiwul yu xamul dara yu amul kilifa ñoom loolu la leen loolu la leen faye c'est-à-dire man dafa am solo xam nga bi ñu ñëwee nommé kilifa yana mar mu mhm. nekk sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko musul faale justice mhm. mu ñu woo nga ne justice bi du ma ko wuy ji hmm. dem mhm. def dem dem ne député la immunité parlementaire la xam nga tey Bougane il est très courageux te am na sénégalais lu ñu war a jàngat réew bi xale yi naan suñu suñu bakken lañ ci teg ma ne leen réew kuy joxe bakken dafa fekk amoo ca suuf sa amoo ca taranga ya amoo ca kër ya xam nga Ousmane bañ ko woowee rek dane deret ak bakken parce que réew mi u fi dara. ay waajuram investiruñ fi dara. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga Bougane bi ñu ko woowee. Mm-hmm. waxul ni nañ taal waxul ni nañ toj. waxul ni nañu rey parce que dafa investir ci réew mi de centaines de milliards ba in l'actuel président. moo doon inspecté ay biens ay kiiwam bi ñu koy defalee zéro faute. Mm. bi ñu ko songee ñoom xam nga ban problème la ñu am ñoom ku yor. ku yor alal liggéey ñàkk ko ñoom eenal nañ la.

ñoom dañ ne syndicat moo leen may kër. Mhm. mais Bougane fi mu jënd gis nga ni mu ko lewee. Mhm. Mhm. def ko immeuble ci biir mu nekk entreprise boo fa demee fekk fa personnel. mais kooku buy génn di wax di wuyu ji. dafay def cortège alalam. cortège comme présidentiel ñoom dañoo dugg ci cortège yi seen bopp toj. ñu dugg ci cortège présidentiel ki dafa dund miin ko. xam ko. kooku du tojlu. gis nga li ñu ñi war a jàngal rek tey ci ci kii bi convocation bi. nañ ko comparer ak mois de mars. avant di yegg ñaata.